léegi li ñuy waxtaanee léegi mooy ci biir dëkk bii di Touba di ko dëkk bu tedd bi tey gis nañ ni ba mu tawee démb fan yi yëpp ma ngay taw euh, dëkk bi mi ngi am ay zone yoo xam ne am na ndox rawatina démb si guddi si fajar bi taw bi bari na lool am na sax ñu ci loru tey euh, Sénégal jëloon na ko alors chaque année ñu ne. am na am na am na ay solution ci ci ci li nga xam moom mooy assainissement ak ndox mi période nawet bi lépp jafe-jafe yu bëri dana wàññeeku mais ba tey jafe-jafe mi ngi sax lu lu lu sabab lu gis nga màggalu Tuubaa gi nga gis dafa am ñoo xam ne dañ koy dundee mais dundaluñ ko dundal gi dunde gi mooy lan mooy li war a dem ci askan wi tey ñëpp yëg seen bopp ci màggal gi daa am ñoo xam ne nekkuñu ca tey ci fii nga gisee nii ni tey Eh, robinet yi guddi guddi ndindi ndindi ndindi bu sëñ Fallou bii nii guddi la ñuy am ndox tey boo demee fii mbalk bi ñu yor mat na 7 mètres ci suuf boo ko ubbee bu guddi jotee ci la ñuy ma am ndox mais bëccëg mënul xeel mais bu màggal gi jeexee loolu yëpp jeex koñ bi ngay gis yëpp ñu manqué ndox fii la ñuy rootee mais ni may waxee yow nii la fa nekk ci ndox bareetoo ah, imaam xaaral nga ne bu màggal gi jotee bu guddee rek lañuy am ndox mbëccëg bi du am ndox lu lu waral loolu nu mu mën a nekkee dañuy def chaque màggal bu jotee sabotage day am màggal Tuubaa gi dafa am ñoo xam ne saboté moo leen tax a jóg sabotage bi mooy lan eh, forage yi boo ci mën di dem ma ngay xel li mais dañ koy tëj tëj gañ ko tëj nag citernes yi ngay gis nii ñuy dem di ko jaay 40 mille 50 mille foofu la ñuy rootee te bu ñuy root ci ci ci foofu du ñu fay déedéet dañ koy dem root foofa dem di ko jaayaat yi di ko jaayaat 40 mille 50 mille ñun daaw jënd nañ fii ñaari citernes bu ci nekk 50 mille te ci fii mënoon naa bañ a ñàkk ndox ndax sëñ Abdou Fatah mi ngi nii këram soriwu la sëñ kër yi moo ngi ni doomi sëñ Fallou yëpp seen kër yi ñoo ngi fii ni tey kon fii waroon naa nekk dëkk bi nga xamante ne bi tey euh, wërta mën a ñàkk ndox boo demee Touba nag waxaale wu ma la ko de centre ville Touba day manqué ndox Daaru mar naan mooy fii euh, brigade nekk muy euh, poste gendarmerie foofu danañ toog deux mois avant màggal trois mois après màggal dañ faa am ñun kër nii may wax ak yow ña ngay ña root mam Cerno bu Daaru Muxti xam nga ko mam mm-hmm. Cerno bu Daaru Muxti mm-hmm. mu mag bi foofu la këram nekk mm-hmm. dëkk boo mooy fii ci Touba duñ am ndox ñoom tey euh, bu màggal ñëweek bu ñëwul ñoo ci yam toujours dañuy ñàkk am ndox sabotage boobu nag chaque année nga dégg euh, gouvernement bi ne leen euh, solution dina am mais du dëgg am na ñu nekk ci dëkk bi nekk ci commission màggal gi ne ndox du manqué asan ah, ah, waaw di di wax lu ñu la wax suba ba ngoon du dëgg Antoine Félix Diome daaw ñëw ne fi mm. bi mbënd mi amee kër ñang xam naa jotu leen fa dem mooy fi ndox mi gën a bëree ba mu dikkee daneen balaa déwén lépp day pare mm. Antoine ñi mitu faa teg tànkam parce que ndox ma ba léegi mu nga fa mu nga fa te moom Antoine ñëw na fi bu yàggul mais bi mu ñëwee Daaru Rahman mooy fi nga xam ne fi la ñuy bayee tool de bassin de rotation bi fi toj dagg dem ci tool yi sëñ seex yi ko te te foofu dañuy bay ay salaat ay soble ay lu nekk mu dem yàq loolu ñu dem foofu la ñu dem lu la gouvernement bi wax ci Touba amul solution defu ci dara assainissement wax nañ ay milliards lañ fi dugal boo doxee ci mbeddi Touba yaay njëkk xam ne lu ñu la wax du dëgg parce que da naan fii moom ay millions demu fi yow parce que ay mbedd ngay gis yoo xamante ne ndox moo fa ne ak suuf gis tëli yu dagg defi ñu fi dara moo tax chaque élection ñu duma leen fii parce que Macky Sall la moo waral état di wax loolu chaque yu màggal ne am na saafara assainissement ndox mi dana ñëw ñu bëri danañ am ndox waa Touba leen bàyyi ci loolu loolu tamit euh, dina nduru waaw léegi loolu dañuy nax askan wi gisoo bu ñu demee ba ci jouru màggal comme jour ba jeudi ba vendredi du yaa ngi suivre cérémonie officielle bi mm-hmm. danañu wax ba mu jeex du ñu wax ci accident yi ñi faatu ci yoon bi doo dégg sax ñu taxaw naan nañ ñaanal ñi nga xam ne dañoo faatu dara gënu ko ñaaw doo dégg ñu ne ñoo ngi massawu coono ñi nga xam ne dañoo faatu ci mbënd bi doo dégg ñu ne tey tuubaakat quartier périphérique yi ñoom amuñu ndox duñ ca wax dara ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm Antoine Félix Diome façon discours politique la askan waa Touba dañoo sonn de loolu moo waral Pape maggat gis nga élection yi élection bii ñu génn victoire bi nga xamante ni bi électoral bi walloog yeewu am fii dañ ne musul am ci eh, histoire Sénégal 1960 ba léegi la ko waral mooy population bi ñoom ñooy atte yow nag mën ngaa far ak Macky Sall ak nguuram mais bu ñu demee ba war a atte population bi ñoo jël seeni i carte xam nañ fañ koy dugal bu ñëpp meloon ni Touba Macky Sall abal na leen. Mm. Mm. kon daal da nga jàpp ne état bi dafay nax askan bi ci nax askan wi la dëkk commission bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu màggal gi di veiller tamit ci li nga xam moom mooy euh, askanu euh, tuubaa ñiy ñëw ci màggal mën a nekk ci ay conditions yu baax ñoomi tamit lan mooy seen wàll ci loolu. xam nga Touba turu commission rek moo am. commission waaye daanaka du commission dara commission la boo xamante ni gisuñu ñun lenn lu ñu liggéey ñoo ngi nii tey nit ñaa ngi ci mbënd ñoo ngi nii ñàkkum ndox gisuñ ci dara dañ koy jëndi gisuñu lu ñu jariñ màggal gi lu dul lan de taxaw ci télé bi ak rajo bi di discours di wax mais ñun waa tuubaa lañ kenn gënuñoo bokk ci dëkk bi suñu maam nekkoon fii ci dëkk bi yore woon jumaay Touba ji di ko gérer bañ ko liggéey ba mu pare looloo tax toujours ma ne leen dañu am ñun droit pour jëkkati suñu kàddu ci tuubaa cër bu fi nit am dañ ko fay am ba Touba di metti la suñu maam ñëwoon fii ànd ak Serigne Touba dem ci tukkeem bi ñibbisiwaat léegi nag groupe bu ndaw la ñu jël ñu gérer dëkk bi di def seeni i seen i seen propagande di nax askan wi naan leen ndox mi amul problème ñëpp a ngi naan ba mandi du dëgg wëlbati ko naan leen assainissement bi jëlee nañ ko fi bu Antoine ñëwee ñoo koy wër kenn ku ci nekk naan koo dëkk bi amul benn problème dama ne président Macky Sall nag moom laay waxal ndax dama ko yërëm mm. yërëm gi ma ko yërëm mooy dafa amul entourage parce que Touba li fi nekk duñ ko ci wax dinaa delluwaat tuuti élection yi jàll mm. Antoine dafay ñëw def fi ay fan këram ay gone yu ndaw ñoo ko doon gérer di ko nax di lekk xaalisam naan ko da ngay gañe Touba bii mooy première élection bi nga xam ne Macky Sall dana gañe Touba ndax musu koo gañe Galas Kaltoom moo nekkoon te di lisam Galas Kaltoom moomu mi ngi nekkoon ci Pastef di jàppale Ousmane Sonko mu yàgg mu bàyyi ko dem ci Idrissa Seck eh, yàlla dogal ñu jël ko def ko tedd liste mais ma ne leen kii du am dara ndax moom eh, Pastef la mais Idrissa Seck la bu tayee mu dem fee subaa mu dem fële mu ànd ak si Abdou Bali si Abdou Bali mooy ki ñu tuddee ministre conseil ci tur amalut njariñ dëkk bi xam nga waxoon naa la daaw ne la ñii ñoo doon ancien ennemi Macky Sall 2012 ñoom ñoo doon génne seen xaalis di financé pour Macky Sall du falu am na ñoo xam ne ci suuru élection yi fetal sax génne nañ ko di ko dóor ci kaw ne leen Macky Sall du fi falo lu ñaaw loo xam wax nañ ko ko bi Macky Sall faloo gars yi ñàkk jom yanu seen i daal dem di ko raamal ñii mu jël leen ñu jox leen ay ministre conseil ay chargé de mission ay nangam mais ancien bu doon jàppale Macky Sall du ci groupe bi nga gis ay Modou Mbacké Bara Dolly yi ngay dégg ak Cheikh Abdou Baleek ay Alla Silaak ay ñii ñëpp ay transhumance lañ man nag man toujours danaa ko fàttali ba Macky Sall yi falu bokk naa ci ñi njëkk a def conférence de presse fii di xeex ak waa PDS yi ñu doon ànd ak benn waay boo xam ne nii ñu koy wax Ablaye Sylla xam nga ko moo nekk directeur général Ecotra léegi réew mi ñi metu fee teg tànkam ndax tiliaa tiliaane ñëpp ba mu tiliaane waa Touba fen leen ñun ñoo doon ànd ba yàlla dogal Macky Sall gañu moom Ablaye Sylla ba yàlla dogal Macky Sall gañu mu dem Dubaay tëdd fa ba mu nekk mu jugee dem États-Unis fa Touba Mbacke gii fii may wax yow mënu fee jaar tey daw la def ñi mu wut a jaar Sénégal parce que ñun xam nañ ci lobby yi mu nekk ak fi mu teg ak fi mu jaar tey mi ngi mi ngi gérer ay milliards nag waaye may wax Macky Sall ne ko Ablaye Sylla moomu dala trahir lu mu la wax suba ba ngoon waxul dëgg te tey li mu gérer ñun ñoo ko liggéey loolu moo tax bu ñu yëkkatee suñu kàddu dañuy wax ba muy métti démb tey nag bi mu neexee ñu ñàkk jom ñoo ko wër tey naan ko waa Touba de da ko gagné Touba moom yaa ko moom élection bi passé dama leen wax leen du fi gagné dara fii laa ko waxee ci salle bi woo Cheikh Abdou Bara Dolly moom moo nekk tëdd liste wàllu yeewi mu ànd ak Cheikh Thioro Mbacké ñu toog fii ma leen maa leen waatal nit duñ fi gagné dara te bàyyi leen ñu dem ba ca ngoon waaye ba 19 ñoom ñëpp lem nañ seen i daal dem tëri fii lañ baatal suñu campagne ànd ak ñoom ne leen tey da jël li nga xam ne mooy électoral tey tey Imam Sall euh, gannaaw nga xam ne wax nga loolu yëpp fi ñuy tënkee rek fi ñuy jeexalee dafa mel ni ki Imam saal bi nga xam ne bokk na ci dëkk bi Euh, bokk koo xamante ne war na ci yëkkati ay kàddu wala bokk euh, dëkk bi suy dox war na ci dugal loxoom daa mel ni ki si benn côté tamit ni nga gis si ay yoo xam ne jaarul ci yoon ci ni nga ko waxee dafa mel ni ki daf la naqari ba sa xol yow tamit. Euh, man dama juddoo fa ma war a juddoo jaar fa ma war a jaar jàng alxuraan ba mokkal ko. Hmm. fii ñu taxaw ku ma gën a mokkal alxuraan ci adduna bi amut. Hmm. kaamil boo ko lakkoon ma bindaloon bind naa ci juróom-ñaar taxoolu ma ko. kon tey yaakaar na ak cëriñ foofu lay am chariat dañ naat ak réer amul ku ma masala bu may laaj doomu aadama fii laa toog ci dëkk bi 10 ans di ko fi jàngale xam-xam yor fi jumaa di ko jiite bu ma neexee nag dugg ci langue politique gi di ci wax mais bu fekkee da jàppale nit ba mu ñor pouvoir bi ñu maase di noos fàtte la bu la neexee wax waaye alxuraan ji ma jàng man maa ngi ciy dund maa ngi tedd am na ñoo xam ne tey la ñu màggalee maa leen ko jox dërëmu gouvernement nag jëluma ko te tey am na ci ñoo xam ne tey la ñuy màggalee état moo leen ko jox ne leen jàllale leen ci askan wi ñu tëdd ci Macky Sall day daan yëkkati xaalis ci màggal gi di ko jox ministre de l'intérieur baa mu jox ko mili daam Diop ne leen jox leen ko euh, sama nit ñi ñu jàppale ma ñoom ñu tëdd ci loolu wëlbatiku tey euh, soxlawuñ seen xaalis de gaa mais ñi leen doon jàppale ndax ñun banañ leen banañ leen bu yàgg léegi ñoo ngi ci Ousmane Sonko ñoo ngi ci wàkkar Ablaye Wade muy wàllu yeewi eh. waaye man waxatuma lu jëm ci Macky Sall ak APR ay nitam parce que duñu niti ay gor ay gor ay nit ñu ñàkk kóllëre lañ ay nit lañ ñoo xam ne du ñu gërëm ñamu daaw léegi nag su ko defee du mer mais dinaa wax fi ñu jaar mu sa Cissé Lo tey bi mu fiy nekk eh, suñu nit la woon koo xam ne xamoon nañ ñun li ñu liggéey mais xam nga ne tey gis nga ko ni mu mel ak ñu ko waree wan ko ginnaaw ndoomu si yàlla sa Alioune Badara Cissé dama doon ànd ak moom fu mu masaan teg tànkam maa nga fa waaye gis nga dañ koo xeex tey ba mu xëy wuy ji boroomam su ko defee nag yooyu boo ci tegee sa bët soo jigee micro il faut nga wax te tey ku ne xam ne ne bu Macky Sall faloo Alioune Badara Cissé tax ñuy wax ba muy métti moom buñ ko bàyyi woon moom Macky Sall du toog fii day génn dem Amérique mais ba Alioune Badara Cissé ne ko ñëwal tey ñu xeex ñu keree li ñu tuddee dekkal ngor Alioune Badara Cissé jël li nga xamante ne bii mooy parti bi ci loxom boo demee ci récépissé bi fekk ko fa gaa yi di ko xeex naan nangam ak nangam boo tey mu xëy wuy ju borom ñoom ñu des yaakaar ne am nañ ndam seen nguur jeex na 2024 jeex na ba pare maanaam li fi des rek mooy ñu àgg ci Macky Sall abal ñu moo tax bu ñu nekk fii di wax ay troisième mandat ma ne bu leen yàq débat yi bàyyi leen ba ñu àgg ca sëriñ si ñoo koy fajal seen bopp ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëm waa Sénégal li ñuy wax toujours ne ab sëriñ daa war a maandu pour lan dëkk bi bu ci ab sëriñ waxut fan lañ jëm ñun dinañ jàng ba ñëw di seetaan ay baadoo la jiite ñu yore réew mi ko def nu leen neex ñu ne duñ ci suñu kàddu te gënuñ ñu ëpp ñu xam gënuñ ñoo xam dëkk bi gënuñoo nekk ay sénégalais léegi nag loolu lañ lay naxee ci sëriñ ne la toogal sa ruq di jàngale alxuraan di jàngale xasida di firi rek yow bul wax ci mbirum dëkk bi loo soxla nga tàllal loxo ñu may la ko loolu ñun duñ ko def ndax moom mii fi nekk moom Macky Sall ba muy ba ba muy doog a door fii lañ toog ci Touba man moom sëriñ Xaadim Mbàkke ñëw na fi sànq ci ngoon mu ne bu ma gàñee lu lu luy seen cër danaa leen ko jox Alioune Badara si seede ko ñu ñu def ko ba ñu paree defuñu ci dara boo jokkoog ñoom Mahmoud Saleh ñu lay trahir nekk ci palais bi di dil nga jokkoog ñoom Mor Ngam ñuy dil nga jokkoog ñi nga xam ne ñoom ñooy Seydou Gueye ñuy dil ñooñu nga dem ba mujj gis ne ñi ay sagaru nit lañ ñoo xam ne ñoo waxal ñu ne leen fa ñukk jàpp Sonko ne leen 2024 da ngeen ñu abal ci réew mi mbokk yi jaa ngeen jëf kooku mooy euh, Serigne euh, Imam euh, Sall moom mooy njiitu président muy imam yeeg ulema yi nekk ci Touba tey moom dama dama ko dama ko yëngal <laughs> tey moom dama ko tàngal <laughs> ndax dama ko fekk fii ba Ndindi ñu koy jaajëf bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak gudd fan mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon.